ñu ñëw pour jaar fi seet ko euh, ak ñaanal ko waaw loolu moo taxoon ñu ñëw ñu ñëw ci brutalité bi ak acharnement bi nga xam ne ñu koy def à la personne de Ousmane Sonko nak nga ko gisee waaw brutalisme bi moom ñun gis nañ ko mhm. maanaam bu fekkoon sax lu leen yoon may la mhm. ñu ko doon def ba feebar fekk ko ci su boobaa dinañ xam ne ñii dañ doon def seen liggéey mhm. mais liñ doon def yoon mayu leen parce que tey juge su Ousmane Sonko eggee démb ci juge bi def ko laaj ne ko est-ce que yow yaa wax ñu jël si ma mu ko déedéet te jàpp naa ne policiers yi foofu gendarmerie ak police yëpp mënuñoo jëfandikoo dara ci kaw Sonko lu dul ñu teg ko ci loo xam ne ordre la bu leen juge bi jox parce que li mu doon def moom ak juge bi la mais du moom ak police du moom ak gendarmerie donc nag nit dañ ko tooñ ñaari yoon mooy tooñ nañ ko yàq nañ wér-gu-yaramam tooñ nañ ko ci euh, malmené nañ ko ci loo xamante ne seen loxo sax warul mën a laal yëfam uppi tamit toj nañ otoom àllanve ko séquestré rek ci loo xamante ne amul benn loi bu ko bu bu leen ko may voilà li ci gën a naqari nag mooy li nga xam ne gis nañ ko ci acte politique parce que tey euh, benn boo ko yaakaar mën nañoo bind sax benn communiqué maanaam mastawu mhm. du leen teree dee du leen teree nekk ay Macky mais gis naa ku mel ne Moussa Bokar Thiam yaakaar na mooy booy disco boobu rek euh, ministre des xaw ma mooy seen ministre yéen ñi taxaw fi communication Euh, mooy ministre de communication euh, bu bu bu bu kii bu non non Sénégal moo jiite communication donc moo jiite presse bi te donc moom mënta wax mhm. moom daakaar naa yéen war ngeen a dem ci Macky Sall ngeen waxtaanak ak moom mu wutal leen ku mën a wax mhm. mu doog def mu jiite communication parce que communication bala nga cee nekk da ngaa war a nekk sax koo xam ne mën nga communiquer dayoo parce que moom ay ay waxam du wax waxam pare du wax waxu nit mhm. parce que nit ku nga xam ne yow doo médecin xamoo wér-gu-yaramu nit ki fu mu toll nga toog ci télé ne kooku dafay tappale donc kon yaa ngi insulté médecin yi nga xam ne ay agent assermenté lañ yaa ngi insulté tamit wér-gu-yaramu nit ki ak kilifa kilifteef yi nga xamante ne yow nekk nga ko moom mu nekk te moom moo toog démb publiquement mu ne Ousmane ko dafay tappale ba pare euh, euh, elle sera condamnée mu ne danañ ko condamné te moom du juge du dara amul sax droit di wax ci loo xam ne dossier la bu nekk ci ko yoon waaw bu ko neexee nag mu daal di jékki-jékki mu ne damay analyser comme kenn mënu ma ko tere soo ko waxoon benn baat ñu ne da ngaa da ngaa loo xamante ne institution la noonu la deme mais nag loolu nañ ko comprendre parce que ñoom xam nañ naka la ñuy demee ci médecin diil ak moom naan kii dafa feebar kii dafa ëmb te ëmbul parce que gis nañ fi kaawu Ami Ndiaye ñii bi euh, taxaw na gis nañ fi kaawu Ami Ndiaye ñii bi docteur Malick mu taxaw mu ne man député laa man assent assermenté la médecin laa kii dafa ëmb te maa ngi lay waatal ci alxuraanu karim waxul dëgg kon ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñeme nañ ñoom nekk député taxaw assemblée nationale nekk médecin ba noppi di fen dégg nga kon donc ñoom kon xam nañ loolu ne seeni médecin kon ñoom mën nañoo dem taxaw ne kii dafa ëmb te ëmbul kii dafa feebar te feebarul xëy na loolu ñu xam ci seen médecin yi looloo tax médecin beneen bu ñu gis ne la muy wax du dëgg ay la 30 ak ay la 8 ay la 2 ñoruñu lan moo ñu ñor mooy wér yaram mu Ousmane Sonko ak bakkanam te wax xaw ma Moussa Bokar Thiam la xaw ma keneen ak keneen dañuy politique waaye ñoo ngi leen di wax ne de nañ ñaan rek euh, ak képp ku nekk ci Sénégal Ousmane Sonko yàlla jox ko wér-gu-yaramam ba mu nekk ci jàmm. waaye jàmm jàmm jàmm réew mi. Mhm. mooy jàmm Sonko. bu Sonko amul jàmm. Mhm. réew mii kenn du fi am jàmm. Ah loolu moom na ko ñëpp xam. bu Sonko amul jàmm. kenn du fi am jàmm kon nag nañu bokk ñun ñëpp veillé ci wér-gi-yaramam ba pare gis nañ Mame Mbaye Niang dem muy civilé ñii nekk ci plateau yi naan ay kii day tappale day def nangam tappale ñoom ñoo ko xam comme ni ma la ko waxee ñoom ñoo ñemee dem ba ba ci à ce niveau ñu tappale ñoom ñoo ñemee médecin taxaw ne kii kenn fi yoole wu ko ñu ne médecin bi waxul dëgg ñoom ñoo xam loolu mais li wóor te wér mooy Ousmane Sonko nit du ko def loolu nga xamante ne dëppoowul ak dëgg wala dëppawul ak yoon te loolu moom la nekkee woon ak ñoom bi muy liggéey ak ñoom te bi mu génnee ci ñoom li politique di dangereux dangereux Ousmane Sonko du wax lu dul dëkk man am naa ci firnde keroog euh, mardi bi jàll bi ñuy def euh, meeting bi ci ACAPES bi muy bëgg wax dama ñëw ba ci wetam ma ne ko suba dañuy def Mbàkke meeting préfet bi autorisé na ko nanga ñu may promotion nga waxal ñu ko ci mu ne ma waaw gis nga boo dégloo discours bi bi muy wax mit ñi def ay marche Mbàkke la tudd mhm. amul woon sax place ci wax ji mais comme man permettre na ma ne dinaa ko wax rek man xam naa ne fi ma toog maa ngi ne Ousmane Sonko de lu mu wax nit dina ko def parce que li muy wax ni man su ko su ko waxul woon sax dinaa comprendre ne ligne éditoriale bi mu jëloon ci biir waxam moo ko mayul woon muy dëpp di wax ci mitinu Mbàkke bi mais ñëw na ba si mitinu Mbàkke bi mu wax ko comme ni ma ko permettre woon moom amul lu muy wax lu dul dëgg amul ay tappale amul leneen li ñu ko def nag nitu ko koo xam ne doomu aadama la rek soo jëlee ay ay ay ay la xaw ma xaw ma ko tuddee poisson xaw ma pompe à la xaw ma parce que ñoom matériel yi ñu ñoom ñoo ko xam mais luy wóor te wér mooy am na lu ñu ko sotti loo xam ne gaañ na ko te am na lu mu yàq ci wér-gu-yaramam voilà loolu nag loolu moom lu wér la te bu ngeen ko xoolee ci image yi da ngeen ko gis euh, ku ku ku déglu ne mbir médecin bi bind da ko gis ku dugg ci biir it ba yàlla may la nga gis ko di nga ko gis. loolu moom noonu la demee. ñu jeexale ak médiation bi nga xam ne ñu ngi koy dégg depuis démb ak léegi même Imam Dramé sax dëggal na ko waaye nee na ñi mu ñooñu nga xam ne moom lañ tudd ñu dox médiation ñooñu dañoo far ci APR looy tontu ci loolu. non man nag médiation yooyu moom man man gëwuma yooyu. Hmm. waaw man gëwuma ay médiation gëwuma dara. man li ma gëm. Hmm. mooy Macky Sall moo yor réew mi na respecté boppam respecté justice bi respecté loi yi mu yore hmm. ñun dañuy opposé wu ñu nekk ci suñ opposition te respecté li ñuy def su élection jotee nañ organiser élection yi ñu gañe ko mu dem yoonam fi amatul lu ñu fi négocier ñun Macky sàll daf ñoo tooñ ñaari yoon benn bu njëkk bi mooy respecté wuñu bi ci des mooy ministre de l'intérieur dafa nekk lu re loo xam ne boo koy jox nit da nga ko war a jox ku am fit ku am xam-xam ku way mais tey Sénégal tey mën nga comprendre que ne Antoine Diome amul jabar ci réew mi amul doom ci réew mi mm. Moussa Fall amu fi jabar amu fi doom ak ñu bëri ñi doon taal Sénégal démb fii yilif police yilif gendarmerie koo ci waxoon génneel ma sa jabar wala génneel ma sa doom du la ko génneel mm. donc ñooñu seen dafa des loolu moo tax piip ñi dem di jël ay oto di fekk ab responsable politique bu toll ne Ousmane Sonko nga neex da nga koy ci kanamu caméra yi ci kanamu ay militant loolu la ci fekk yow la voilà mën nañ jàpp Ousmane Sonko maal ma ne ko yóbbu de mais démb ku ñëw fii Sénégal xam ne parti Pastef dafa décréter couvre-feu démb te te appliqué nañ démb ñun ñoo ñun au lieu que police gendarmerie ñoo defoon couvre-feu wala état Sénégal mais parti Pastef démb ñoo yóbbu Dakar couvre-feu partout Sénégal te appliqué nañ ko ñoom ñëpp kon donc loolu dafay wane ne affaire de jaay doole affaire de fukk affaire de haine amu fi ñoom nañ respecté loi yi ñu tiim ñun ñu respecté loi yi ñu tënk moo gën nekk ci néeg di waxtaane loo xam ne finalement dëgg ko lal voilà